nañ am na benn bàyyi bu mag bu mu soxla jaar ci kaw suuf ñu ngi tuddee rajo suuf man ko gars yi jàpp boo demee ci Égypte ci Misra xam nga loolu ñuy wax Misra tey te seen jamono dañoo amoon ab mbooloo wala aw askan bu ñu tuddee alfaraar yi alfaraar yi mooy les pharaons yooyu ñuy indi dañu leen di wax les pharaons dañu doon ci pharaon nit ku ñu waa Misra yëpp ñooy alfaraar yi comme ni ko gars yi defee loolu ñu njuumte la te dañoo les pharaons mais dañoo koy ñu déedéet loolu njuumte la man dañoo war a waa Égypte loolu égyptien yi waaye war nañu les pharaons pharaon bi mooy bokkoon ci giir boobu nga xam ni te la firaaw na bokk muy giir boobu nga xam ni ay buur lañ daan doon waaye ay yàqkat lañ daan doon waaye ay laay laay lañ daan am na ay kenn koo xam ne daan gën a siiw la sax moo la teewal Moussa ñu koy tuddee Rambo boo demee ci seen giir dañuy séddali ko maanaam comme askan wi ngir sàngam moo jëloon xilaafa gi mu ñeexee ngir sàngam moo xilaafa gi ni mu teelee jeexee ngir ñëpp nag ci biir pharaon yi lañu bokk fukkeelu giir daal juróom ñett ma xilaafa gi yegsee ci ñoom fukkeelu giir ga ak juróom ñett wala juróom ñeent fukkeelu giir ga ak juróom ñeent ba nguur nga yegsee ci ñoom bañ amee benn buur amaat beneen buur ñetteel ba mooy Ramsès deux muy Firawna bi muy muy saay saay bu bon mu dajeeg beneen waay boo xam ni moom la ñuy wax yonent yàlla Moussa alayhi salaam al-Mustiyar ñi nga xam ne ñi gëstu jëm ci wàllu histoire ci borom xam-xam yi dañuy wax ni Moussa sëtëb yonent yàlla Ibrahima la ci askan woowu la bokk ndax Moussa. bàyyam mooy Imran comme ni ñu ko xamee Imran bàyyam mooy Qahit Qahit bàyyam mooy Aazir Aazir bàyyam mooy Laawi Laawi moom yaakaar naa ko siiw la ku ñu xam la Yaqub mooy bàyyam te Yaqub mi ngi bokk ci doomi Isxaaqa yi te Isxaaqa ñun ñëpp xam nañ ni Ibrahima kon askan wu gàtt la waaye gudd lool comme ni ma leen ko waxee woon ci bind démb bi li tax mu gàtt mooy li ngeen dégg ci ay maam bariwul li tax mu gudd mooy ñoom la gën a gudd sax kon buñ guddee ban diggante këlit kii mën naa soree lool ba nga ay téeméer téeméer at la ay juróom-ñaari wala juróom-ñetti maam ay fukki maam naa wax na fekk àggul foofu Moussa alayhi salaam borom xam-xam dañuy wax ni yaayam mi ngi tuddoon Luuxa ah binti Haalid binti Haalid Luuxa binti Haalid boo demee ci téere yi nga xam ne jox ci wàllu siira ku mel ni alxaafis ibn kathir ci bidaaya wa nihaaya wala ku mel ni ibn isxaq sa sama siira ak mi demee noonu ibn asakir ñoom imam tabari ibn jarir a tabari ñii boo ci delloo dañuy wax wax yooyu maanaam yaayam mi ngi tuddee luuqa doomu haalid doomu laawi kon nekkati Moussa yaayi Moussa ak yaayi Moussa ñoom ñaar ñoo bokk benn meen bi muy laawi mi nga xam ne yàqu meen dëgg la nag am na weneen tur bu mu gën a siiwee moom yaay Moussa wutut wi waaye lii moom moo ñu gën a dëgg borom bi defoon ko nag mu bokk ak jigéen ñu baax jigéen ñu ragal yàlla ya waaye sànneel ya suñu borom comme ni ma ko waxee sax saar bi mi ngi ciy nekk ci sax Moussa alayhi salaam rawatina tàmbali bi ci ak bis boobu suñu borom ni taasim waaye mi ngi mi ngi bokk ci alxuruf almuqatta kaaf haa yaa ayn saad yéen a gën a gudd haa miim ayn siin qaaf alif laam miim saad alif laam miim ra alif laam ra alif laam haa miim nuun saad qaaf yooyu moom mooy saar yi nga xam ne ñoo tàmbalee alxuruf almuqatta taasin am na taasim mim am na taasim mim moom benn la mooy bu Moussa bii waxoon naa leen ni xaraf yi borom xam-xam yi dinañ ci jéem di bërbëri waaye li gën a wér mooy dafa bokk ci xaraf yi borom bi di dàggee di wane ne alquran da ci lii rek lañ ko composé te doomu aadama yi ak jinne yi la in ijtamaat al insu wal jinnu ala an yatu misli hada al quran la yatuna misli walaw kaana baaduhum li baadin zahira nit ak li muy muus muus jinneeg li muy xarañ xarañ buñ dajale woon seeni mbooloo ngir bëgg a indi alquran ju ni mel suñu borom mu ni duñ ko man donte ñenn ca ñoom ña ngay déyanteeg seeni morom du sotti parce que lii tanzilun min hakimin hamid ah ñaar la aywa kon mbokk mi mu ni tansim miim ñaari saar la soxaraa gi ñu génn jazakumullahu xayran ak saar wi kon ñaar la ci sunu borom mu ni tilka lii nu dégg ñu di ko jàng tilka lii nga xam ni moom la nuy dégg te bokk na ci saar wi na ma jàng tey ayatul kitaabi mooy aayay téere bii nga xam ni almubin téere bu bir la téere bu leer la borom bi subhanahu wa taala dafay melale alquran alkitaabul mubin ak alkitaabul karim alkitaabul karim mooy téere bu tedd téere boo xam dafa tedd dafa màgg dañ ko ormaal waaye alkitaabul mubin mooy téere boo xam dafa leer dafa fës dafa mën a firi dafa mën a firinti ko dafa mën a faram-fàcc te loolu ci alquran da nga koy fekk téere boo xam ni soo demee maanaam mboolem lu jullit bi soxla ki gëm yàlla sunu borom faram fàcce na ko ci téere bi moo tax sunu borom di ko tuddee kitaabun ah ihkimat ayaatu dañoo xereñe aay ba nga xam ni dafa xereñ lool summa fussilat dañ koo firi faram fàcce ko teqale ko li tax mu mel ni mu mel parce que mi ngi bàyyi ko min hakimin hamid koo xam ni ku xereñ la waaye ku ñu gërëm la ku yayoo cant la moom sunu borom sunu borom mu ni natlu alayka tey nag dañ lay jàngal natlu alayka dañ lay xabaare min naba'i Muusa ci nettalib Muusa alayhi salaam wa firawna ak saay-saay booba di firawn ah ki gën a baax ca jamonoom moo daa jeg ki gën a saay-saay ca jamono Muusa jamono ba mu dund moo ci gën a baax firaaw la jamono mu bu iblis jàllee moo ci gën a saay saay ndax loolu alquran saxal na ko ci saay saay su mag si la bokk natlu alayka dañ lay jàngal min naba'i Muusa ci nettalit Muusa wa firawna ak firawna bil xaq mu tege ci dëgg nag waxuñu ay léeba diwa ko wax ak ñi ngi ko déggee ci wewu nag xam ni ko gars yi waxee ñi ngi ko dégg xam nga xabaar bu ñu déggee ci wewu nag moom wóoru moo tax boo dégloo ñuy joxe xabaar xabaar boo xamante ni bëggoo ñu képp la ci fenn da nga naa maa ngi ko déggee ci wewu nag mooy loo xamante ni ci jaww ji rek laa ko déggee xabaar yi ñu nettali di ko jaarale ci wewu nag bokkut ak alquran ji alquran ji sunu borom mu ni bil xaqi mi ngi tege ci dëgg ndax wa bil xaqi anzalnaahu wa bil xaqi nazal te it huwa al xaqul mubin nag ci dëgg la wàcce ah te it ci dëgg lañ ko wàcce te borom dëgg ko wàcce wa huwa al xaqul mubin te it mooy borom dëgg gi waaye mooy dëgg tamit moom sunu borom inna allaha huwa alxaqul mubin sunu borom mooy ñu ngi lay nettali min naba'i Muusa nettali Muusa wa firawna ak firawna muy saay saay bi bil xaq mu tege ci dëgg waaye li qawmi yuminuun ñeel gaa yi nga xamante ni ñoom dañoo gëm yàlla subhanahu wa taala kon ndeke mbokk yi maanaam nettali yu mel nii bokk na ci kim gën a mën a jariñ mooy ku gëm yàlla subhanahu wa taala gis nga nit ki bu gëmee yàlla saa buñ ko fàttalee lu gëm ci jëm ci ajana dafay ñot di waat xolam ci gën a bëgg yàlla ak la ne fa moom ci xéewal suñ ko fàttalee lu jëm ci safara day gën a tiit ragal boroomam wa yuxadirkum allahu nafsa yàlla mu ngi naan moytu leen ma mu gën a ragal yàlla subhanahu wa taala waaye buñ ko nettalee ay qisas rawatina ñi nga xamante ne dañoo saay saayoon suñu borom fa dammara allahu alayhim tadmira fa dammarnaahum tadmira day xam ne li wala fii lépp naan lu dut yàlla neen loolu wér la saa buñ ko nit ne ci xisasu saalixuuna wal anbiya day tax fi mu teg tànkam mu gën a dëgër nga xam ngeen ni mbokk yi dafa am solo lool nit ki nga xam dafa nekk ci njub ñu di ko fàttali ña ko jiitu woon ci njub yi lii moo tax may wax ni mbokk yi nit li saxaaba yi muy xayaatu saxaaba dara gënu koo am solo ci dund ko gëm yàlla ndax étape boo mënti toll ñu la man fopp gën laa ragal yàlla fuuf gën laa néewi mooy te dàq laa jaamu yàlla ñoo la fi jiitu woon nga xam ni ñoom àjjana bu doon lu ñuy xëccoo moom sañoo sax di jàkkaarloo ñoom naan da nga koy xëccoo ak ñoom kon loolu dafay am lu muy delloowaat ci xol ku gëm gis nga boo gisee occidentaux yi gis nga nuñ def alquran def ko sunna def ko xadiis def nañ ko siira muy dugal ay ndëxëñ ci biir siira ba dugal ci yu bari yoo xamante ne fiihi qadxun li saxaaba dañuy ŋàññi saxaaba yi moo tax al imam abu bakrin ibn al arabi abu abu bakr ibn al arabi dafa am ñaari abu bakr dafa am abu bakr ibn arabi nga xam ni kooku nakira la am abu bakr ibn al arabi al maliki nga xam ni maarifa la bu am alif jeeg laam dafa taalif benn téere boo xam ne daanaka téere xaw tuuti kon du mel ni moom mu tuddee ko al awaasim min al qawaasim fi maarifati mawaqif alsahaba bada rasulillah gis nga téere boobu boo ci delloo defal na ko muqaddima bu am solo bokk na ca la muy wax mooy tagg saxaaba yi ba noppi wane ni képp koo xam ni mi ngi wax lu ñaaw ci saxaaba yi wala mu leen di ŋàññi kooku zindiq la kooku kéefër la kaafir la yustataabu dañ koy tuub la wa illaa dañ ko war a rey bokk na ci yi tax mu wax loolu mooy gis nga nit ñi ñi nga xam ne ñooy nooni lislaam yi bokk na ci yi nga xam ne yëg nañ ni day defar xolu julit lu mel ni alquran alquran moo xam ngeen moom kenn mënu cee dugal lu ci bokk jéem nañ ba sonn nag benn virgule mënuñu ko cee dugal mënuñu koo génn léegi li ñuy def mooy fexe créer ay affaire yoo xam day waral léegi doomi jullit ñi dootul jàngee ci alquran wala fexe créer yoo xamante ni day tax doo mën a doo mën a am jot pour jàng alquran journal journal waxut leen lu dul duñ xew ci réew mi téeméeri journal bëgg am ci réew nga bëgg a yeewu nga ne man téeméeri journal yépp bu nekk danaa ko lire doo jàng alquran cent cinquante chaînes ñu wut ay parabole yoo xam ne fu nekk nga bëgg faa laal sept heures sept minutes am na émission buy daw doo jàngal alxuraan doo ko tal wallahi alazim yii ci système yi gën a garaaw la bokk yi ñuy xeexee l'islam te julli ñu yëguñu ko yëguñu sax lu xew ñoom ñu ngi nelaw rek gis nga antenne yi ngay seen benn bu ci wax lu am njariñ amul lu niiw illa man rahima rabbuk ñooy def ay émission yu am njariñ yooyu day tax dañuy jël sa waxtu boo paree ci liirum journal bi yaa nga ca déglu seen ya soo paree yaa nga ca soo paree yaa nga ca te lan lay waxal yu ñàkk xorom la ñàkk fayda yoo xam ni jàngal Quraan ko gën déglu xayaatu saxaaba ko gën nafar sa sa sa bindab xam-xam moo ko gën borom bi subhanahu wa taala mu ni ñu ngi lay nettali nettali Muusa ak Firawna waaye li qawmi yuminuun ñeel gaa yi nga xam dañoo gëm yàlla ndax ñi gëm yàlla kat dañuy bég dañuy kontaan buñ leen nettalee loo xam ni dafa nit jëm ci ña nga xam ne ñoo jiitu woon gis nga saay saay si ñoom it kadalika saay saay si boo leen nettalee loo xam ne moo jëm ci seen mbir dañuy kontaan saay saay gi sax ku daanu xam nag ndax looloo koy kontaan loo ndax kenn ku ci nekk la ngay bëgg waaye walladina amanu moom ashaddu xubban lillah ñu bëgg giñ bëgg yàlla moom dee su ko pesé di ko teg di ko dendaleeg leneen suñu borom tàmbalee ci saay saay bi mooy firawna mu ne inna firawna bandi boobu ñuy wax firawna ala dafa rëy rëylu woon dafa kawe kawelu woon fi l ard ci kaw suuf gis nga al uluw fi l ard laa yuxibuhu llah laa yuxibu llahu al uluwa fi l ard wala yuxibu al fasada fi l ard ñaari melokaan yu bëri ngi nii yoo xam ne bu ci nekk firawna yore na ko te yàlla bëgg gis nga soo demee ci borom bi subhanahu wa taala fa muy wax ni tilka daaru l axira mu najcaluha lilladina laa yuriduna uluwan fi l ard wala fasada parce que al uluw ak al fasad al uluw dafay diir màgg yàlla al fasaad dafay yàq kaw suuf si te ñaari benn la suñu war a bëgg la yuriduna uluwan fi l ardi wala fasaada firawna nag ñaari yëpp la yore woon ala dafa kawe kawel woon fi l ard gis nga kawe kawe googu moo ko yóbbee woon mu naan yaa haamaanu bni li sarxan laalli ablugu l asbaab dama bëgg ngeen tabaxal ma benn sato boo xam ni daal dama ci mën a def ay jéego pour mën a yéeg ci kaw asamaan asbaab as-samawat fa attala ila ilahi Musa ma jéem a xool yàlla Musa ja aay jooju newoon naa leen gis nga li lay wan ni Firawna daa saay saay waaye xam na ni Musa wax na dëgg gis nga tey bu benn gone ni woon ak gay néegi fii ci biir néeg xam nga daanaka dañuy xaw a defe ne du dëgg waaye boo nee du dëgg ba pare loo dem di gëstu ak a xool bu fekkee nee nga du dëgg moom bul dem doon yërëm parce que gëmoo ko mu jeex waaye gaynde gi dinañ nga di dëgg gëwma ko ba nag wëlbati ko di yërëm tey mooy ko mooy sa gëwma ko di gëmoo ko yow firaaw na kon weddi gi mu weddi Moussa gëmu ko ndax li tax gëmu ko mooy laalli attali ila ilahi Moussa dama bëgg a dem xool yàlla yi Moussa ja tey sax et puis wa inni la azunnuhu kaziba ab boo demee sax day fen boo demee day fen kay looy yëgati ci kaw asamaan si di xool gis nga benn ngoog beneen bi ci des moom mooy Moussa alayhi salaam ci jamonoom Firawna ak njabootam saa bu nu jàqee dañ naan ud'u lana rabbak yaa ayyuha saaxir foofu nag saaxir tekkiwul comme ni ko nit ñi tekkee buxaabat déedéet saaxir ci seen jamono mooy borom xam-xam maanaam ñoom boo nee saaxir te seen jamono rek mooy kanfóore kon dëgg la di doon nañ njiiñ Moussa njabar waaye sixir boobu dëgg-dëgg du njabar kese waaye ñu ngi ci namu fóore yi borom xam-xam te buñ jàqare nag yaa yoo saaxir udu lana ma ahida indak gis nga kon saay-saay moom saay-saay rek la mën a nekk Moussa alayhi salaam wala Firawn sunu borom mu ne ala fil ard daf doon réeréelu ci kaw suuf si wa jaala mu def ahlaha population bi ñoñ wa siyaan ay pàcc pàcc daf leen a xottate yastadifu taifatun taifatan minhum muy noggatu ñenn ca ñoom gis nga newoon naa leen alquran lépp ci kaw suuf dañ ko ciy jàng xatta politique sax gis nga système yu système yu baax yi ñu gëm yàlla di jëfandikoo ak système u saay-saay yi ñu bon ñuy jëfandikoo dañ koy jàng ci alquran wallahi boo tadabbooree alquran rek gis ko gis nga fii sunu borom mu ni jaala ahlaha shiyaan dafa def population bi ay pàcc pàcc xam nga loolu mooy lan gis nga nguur nguur gu tege ci caay-caay balaa am jàmm dafa séddale nit ñi gis nga boo gisee nguur day ñëw am kërub diine gu mu yëkkati ba ca kaw am ñoo xam da leen di fàtte fàttelu gis nga moo ko tey de gis nga loolu ñoo ko tey am na lu ñu ci jublu lu rëy beneen bi ci des mooy gis nga da ngay jékki-jékki ñu xool benn waaye gis làmmiñ wu rëy mu mën a wax mën a politique mën a nangam gaa yi fexe ba xëcc ko korampro ñëw fekk ab parti politique ñu seet ñi ci ëpp solo ñu rocc leen jox leen ne kaat kaat ak i nangam ngir xam nañ ni bu ñu leen détaché noonu rek puissance muy doole ji nga xam ne moo la mbooloo mi amoon dootu ko amati nguur day def loolu gis nga nguur day ñëw def li olof yi tuddee coppet ci bii teg ca bee loolu olof yi wax coppet ci bii teg ca bële léegi lan lañ ci jublu mooy gis nga population bi su fekkee ñoom ñëpp da ngeen a bàyyi ñu nekk benn def ñii bis buñ jugandoo song la rek ci suuf nga jëm système u saay-saay nag loolu lay xam moo tax day fexe ba am ñum gën a faral am ñum yëkkati ca kaw am ñum teg ci suuf am ñu muy raayal seen ndigg am ñu muy wat seen bopp su ko defee saa boo xamante ni ñii jub nañ pour dal ci kawam moom day jënd leen coppet ci bii teg ci bii fëggale leen daal di toogi fële defe naa système bii ku xellu ci yéen rek tey xool jamono bi ni muy doxee tey rek da ngay xam ne lii lu wér la ci àdduna bi yëpp nag mboolem foo xam ne ña ngi fay dund te l'islam doxu fa mbir mi ya nga fay am kon jaala ahlaha dafa def aw ñoñam siyaan ay pàcc-pàcc di gën a leen di ci seen biir yëkkati ñii ba ca kaw ñooy alxibtu yëpp suufeel ñee ba ca suuf mooy banu israil mooy mbokki Muusaa yi su ko defee loolu mu ne yastadifu taifatan minhum muy noggatu am mbooloo ci seen biir yusabbixu abnaahum muy rey seeni doom wa yastaxyi nisaahum di dundal seeni jigéen bilis di leen defi jaam loolu lay tekki parce que yastaxyi foofu li muy tekki mooy dundal leen waaye bu ñu nee dundal leen parce que da ngay jàpp ne mooy dundal leen may leen jàmm déedéet dundal leen def leen mbindaan la ñee nag moom ñu di leen rey ñoom góor ñi sunu borom mu ni innahu moom firawn kaana dafa nekkoon min al mufsidiina ci yàqkat yu bon yi yonent yàlla yusuf alayhi salaam ba mu yaxew xewee ba ay mbokkam tàbbal ko ca teen ba am njëkk jaar fa dal di koy génne ñu jaay ko buuru misra mu nekk ca biir pale ba ba ndaw sa provoqué ko tëj ko ci kaso ba yuusuf génn ba buur ba faatu ba yuusuf nekk buur maa ko mbarosu noonu loolu dina ñëw ci asaral xasas surtout yuusuf ba mu nekkee buur dafa sàkku ci ay mbokki baayam nañ ko fekk ci misra lii may wax moo jiitu Moussa alayhi salaam boo baayam mi ngi jooy ba silmax muy leen jël leen xamis bi semis bi mu yore woon mbub mi su ngeen demee ngeen teg ko ci kanamu baay ji dana xool yatti basira dana commencé gis mu ne waxtuuni bi ahlikum ajmain ngeen andi njaboot gi yëpp ca la waa mi- mbokki Yuusuf ya toxoo dal di ñëw fekk si Yuusuf ca Misra gis nga bi ñu ñëwee fekk si leen ci Misra te ñoom ñooy wenn askan wi ñooy wenn askan wi nga xam ne ca la Muusaa soqeeku woon bi ñu ñëwee Misra dañoo nekkoon xeet wu tedd nguur ak Yuusuf tax ñu nekk ñu kawe ci Misra ñu nekk noonu nekk noonu ba Yuusuf faatu alayhi salaam bi Yuusuf faatoo teg nañ ci ay at nit ñi di leen ormaal waaye ba at ya jàllee ba xaw a sori lool ci la toroxtaange gi nag doog a tàmbali rawatina bi faraayina yi commencé ñëw rawatina bi Ramses da ñëwee waaju bon ci xam ngeen ni waxoon naa leen ni Muusa alayhi salaam ba muy génn ca dëkk ba sunu borom daf ko wax ni ko booy génn bu fi bàyyi kenn même yuusuf min ko su min fi suuloon sax sulli ko yonte yàlla Muusa xamut fan la yuusuf suulu mu daal di wax waa banu Israaïla màgget ya fa nekkoon kan moo xam fan la armeelu yuusuf nekk kenn xamu ko lu dul benn meer bu màggat moo xam ne dox sax mënu ko meer bi ni leen xam naa fan la armeelu yuusuf nekk waaye ku ko bëgg a xam bala ma kaa wax dama am lu ma dama leen koy jaay xabaar bi dama leen koy jaay ñu di ko wax ko Moussa mu ni leen dem leen ngeen laaj ko lu mu koy jaayee ñu laaj ko mu ni damaa bëgg boo duggee àjjana ma dugg ànd ak yow ñooñu Moussa doon torop sax torop ñooñu xam nañ njëg gi ñii ñii tijaara bii ndaw si doon def mooy tijaaratan lan tabuur hal adullukum ala tijaaratin tunjiikum min azabin alim ak tijaaratan lan tabuur mooy dugg àjjana ah ñu daal di ñëw wax ko Moussa Moussa moomul àjjana de boo ko teg sunu gaa yi nga xam ni ah sang nañ ko sàng sóor jàllale naa ko ku jàllagul doo mën a jàllale kenn wallahi loolu xel sax nangu na ko ku jàllul mënoo jàllale kenn déedéet mënul nekk ruqus yi nga xam ne mooy kër maam Ablaye Wade ca ca pale ba ah waxuma na nga am fab néeg waaye nga dugg fa sans audience sax mënoo ko ah pale bii nga xamante ni ñi ngi ko defaree ciment ak vitrine ak seetu nga xam yàlla dana ko ma xañaate lépp keroog bu àddina bi tukki balaa ma faa yegg sax fab nag mënoo fa am néeg ku la wax am na néeg fële xanaa da nga kaa ñemewul rek moo tax waxoo ko dara nga noppi rek waaye boo noppee moom bu dee am nga xam-xam da nga koy jullee tisbaar mbaa nga jullee ko timis kàcc nga ji moom jullee ko tisbaar mbaa timis rek wax ko ndànk mbaa wax ca kaw waaye mooy li am Moussa daal di laaj suñu borom suñu borom mu ni ko waaw nee ko li mu bëgg suñu borom dana ko ko defal Moussa daal di wax ndaw si ne ñëw ndaw si ne amul i tànk nañ ko boot ñu daal di koy boot andi ko ndaw si ñëw bu fekk fu ndox taa mu ne leen fii lañ suul Yuusuf fu ndox taa ah fii lañ suul Yuusuf de ñu jëm kaw jëm su mu ne fii lañ ko suul gaa yi ngacc ndox ma ngacc ko ba sànni fële daal di gas fekk néew ba mu mel nam meloon ci ginnaaw ay téeméeri téeméeri téeméeri téeméeri at lu tax yonent yàlla bi neewoon na sallallahu alayhi wa sallam bisu àjjuma yàlla dafa yebal malaaka yi daw ci jaww ji yoo xam ne ku julli ci man ñu jottali ba ko ba moom fay ko ku ma nuyu ak ku julli ci man ñu ni ko ah yonent bi loolu nu mën a demee te yow fekk na seey nga ci suuf si mu ni inna al arda la taakulu jasad al anbiya suuf du lekk yàpp yonent yi wa kadalika sax nag tamit am na jaami yàlla yu baax yoo xam suuf du lekk seen yàpp mën nañoo yàgg ci kaw suuf lool defe naa waxoon naa ci ay mbir yu bari kon bi loolu amee léegi nag Firawna daal di ñëw nag mooy Ramsès II bi mu ñëwee samp nguuram samp ko ci caay-caay goo xam ni mallahu bihi alim ñi gën a saay-saay ci kaw suuf bokk na ci Firawna Firawna moom moom daanaka bi mu fi nekkee es espoir u seytaane la woon espoir u Iblis demoon na ba daanaka Iblis nag xaw tuuti ko mu war a mën a jël retraite ndax lu mu doon yàq Firawna nga ko yàqal xam ngeen ne ku dem bay wax ana rabbukum al aala man maay yàlla ji gën a kawe maa alimtu lakum min ilahin gayri yàlla da ko jayoon nag firaaw na ponkal la woon moo xam ni njool ca kaw tal dëgër fuuy réew xamali lu ko neex wax nag lu ko neex wax ah firaaw na rek boo ko waxee jaar ci turam rek mu ne isbaxu rendil leen ma ko muy jaar ci sama tur bi ak a bon waay gis ngeen fi mu yeggoon de bu toogee ca kaw gaa yi ci suuf la ñuy toog kenn du siggi xool ko lu ko neex lay lekk lu ko neex lay naan yàlla may ko ci nguur may ko ci doole bal dañuy wax ni faraay ne ñi fi jaar moom bu ci ëppul doole sagam sax ëpp ci doole ñoom ñëpp ñi fi jaar ñëpp moo ci ëpp doole suñu borom gis nga ko de yonent yàlla yëpp dëgër fi yonent yàlla yëpp di ay jàmbaar waaye nag suñu borom tànn gim tànn Moussa yebal ko ci Firawna beneen affaire la ndax xam xam ngeen ni Moussa ci ñi gën a dëgër fit min xalqillahi fil ardi la bokk Moussa caaxaan tiitalu ko de tey nag amut lu muy faale illa rabbal alamin ndax maam Ibrahima mooy baayam alladi xalaqani fa huwa yahdin Firawna léegi bi mu toogee ci nguur gi dañoo toog ab diir rek bu xaaba yi daal di gisaane bi ñu gisaane ñu ni Firawna lu ñuul lii ñu gis mooy li bu xaaba yi def rek lu ñuul lii ñu gis ci jaww ji muy wàcc ah mat naa seetaat de firaaw na ne lan la ñu ni ko yow sa nguur gii nga seen dana folleeku te ki ko nar a folli gone la goo xam ni ci waa banu israila ñii lay juddoo muy Muusa alayhi salaam ah firaaw na daal di woo ahlu masura bi ñu leen kaay la ñu ñëw mu ne leen lan mooy seen xalaat ci gaay bu xaaba yi li ñu wax gaay ni ko ah bu dee ci ñoom la nar a juddoo day faagaagal leen ba ñu jeex tak su ko defee du judd benn yoon waaye ñoom ba ñuy wax dañoo xamu ne laa yanfaw xadaru min qadar borom xam-xam dañuy wax ni laa yanfaw xadar min qadar mooy ta ndiku mënta tax a mucc ci dogal li nga xam ne yàlla dogal na ko bay day wante kooku moytandiku mënta tax du dal ci sa kaw boo moytandikoo day fekk fa nga fa nga moytandiku féetale fa sa bopp foofa la xeera wala na dal firaaw na daal di génn benn dëkkëri dëkkëri bu saay saay mu ni léegi dañuy fal koñ bu ne te gis nga jaala ahlaha chiaan léegi chia yi mu ci def kenn ku ci nekk moo la fal fa nga nekk te xam ngeen ni buur bu la falee da lay woo ba ci bet mu ne la gis nga yow fonk naa la lool buy nga góorgóorlu yow xam naa maa ngi lay jagleel lii ma lay wax sax waxuma ko kenn ci gaa yi fekk day kàcc xam nga lu mu ci nam mooy daa bëgg yow moom bul bokk mukk ci ñi koy xeex beneen bi jeex boo jugee nga jàpp ni yow rek lay defal affaire keneen jàpp loolu keneen jàpp loolu moom la ñuy nettali ne waaja daa toogoon moom yàgg mu ni biñ ko laajee nu mu tërati kan nga gën a bëgg ci sa jabar yi kan nga gën a bëgg ci sa jabar yi mu ne xanaa ki ma mayoon dërëm ba mu ne xanaa ki ma mayoon dërëm ba fekk kenn ku ci nekk ci guddi gi jaar na fa jox la dërëm ki ma mayoon dërëm ba kenn ku nekk jox na la dërëm ku nekk day jàpp ni mooma gis nga saa ngóorub caay-caay noonu lay def kenn ku ci nekk da lay wéet ak yow ci ruq defal la ay affaire ba nga jàpp ni yow rek yaa fi nekk yow doo ko xeex sa morom du ko xeex ndax li nga jàpp loolu sa morom jàpp bu ko defee bokk koñ bu nekk koñ bu ne rek mu wax leen falal leen ay nit yoo xam ne jigéen ñi rek la ñuy suivre jigéen ju ëmb jigéen ju ëmb rek nañ la tey turam ci registre bi di ko suivre fu mu toll tey mi ngi ci ñeenti weer mi ngi ci juróomi weer bu tollee ci juróom ñeenti weer rek ñu ne nee ko nii guddeeg bëccëg suba ak ngoon ci biir këram da ngay ñëw suba si ñëw ngoon ñëw guddi ñëw suba fajar pour xool ndax am na doom wala déet su amee doom muy jigéen rek ñu ne ko yow am nga jàmm bu dee góor rek ci kanamu yaayam lañ koy rendi maam ci kanamu yaayam lañ koy rendi ak seen i jaas yi paaka yi dem seen i yàlla mu aman affaire bi nag subhanahu wa taala sunu borom mu man affaire bi daal di bàyyi leen rek ñuy rey rek di rey rek gis nga yàlla subhanahu wa taala moom li ma leen waxoon démb ni moom yàkkamtiwul dara parce que moom li muy dogal dogal na ko nag xalima ci dogal na lépp sunu borom def ñuy rey di rey di rey di rey di rey ay junni junni junni junni nit dëgg la ahlu siyar donte loolu dafa daif sax dafa daif am na ñuy wax ni maanaam la mu rey ah mat na juróom-ñeenti junni liir juróom-ñeenti junni xam ngeen junni ñaari junni ñetti junni ñeenti junni juróom-ñeenti junni donte riwaaye boobu dafa bàyyi waaye ànd ak li wér moom la mu rey ay junni la moom ay junni loolu werante wu amu ci moom ndax nu mu toll nag yàllaa ko xam gaa yi dem ba gis ni te gis nga yàlla liñ naan ida arada allahu nashra fadilatin tuwiyat ataaxat lahu lisaana xasuudin léeg-léeg am na yoo xamante ni bu ko yàlla naree jàllale ci làmmiñu ko gën a bon wala ko gën a soxar sax la ko yàlla jaarale fa gis nga ñi nga xam ne ñooy mbokki firawna yi ñoom ñoo dem ba mu yàgg ni ko firawna sa rey mii wàññi ko maa xam nga ne rey bi continuer suñu kaw lay këpp si ñun ñi firawna ne ah ñu ne ko waaw waaw muy nu muy këppoo suñu kaw mu ne gis nga liggéey yu metti yi ci dëkk bi yëpp waa banu Israël ñoo koy liggéey ñun ñooy ay buur gis nga boo leen reyee ba mu jeex ñoom dootuñ amati góor yu mën a liggéey liggéey bi te màgget ya duñ ko paayee duñ mën a liggéey tey jigéen ñi mënul dara su boobaa ñun ñi ñooy wàcc ci mbedd bi di ko liggéey firaaw ni moo ne wax ngeen dëgg de ndekete xalaat ba nar a dagg bopp baa ngoog xalaat bi nar a dagg bopp firaaw na mooy boobu lii moo waral firaaw na arrêté rey te arrêté gi kat xëy li ñu naan provisoirement arrêté bu gàtt la mooy 2000 bu kenn rey waaye 2001 rey leen 2002 bu kenn rey 2003 rey leen sunu borom mi man affaire bàyyi Moussa ci boppam mu am benn mag bu ñuy tuddee Haaruna Haaruna ñëw judd ca at ma nga xam ne kenn du rey sunu borom bàyyi Moussa miñ gën a soxla mu judd ca at man war a reyee loolu loolu kéemtaan bu rëy ngi ci mbokk yi mooy sunu borom su nekkul woon ku man affaire day làq Moussa ni ko juddul ca at ma kenn dul rey waaye sunu borom mi nga xam ne dul qudratil baahira mooy borom kàttan gi nga xam laa yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama danaan Moussa juddul ci at mi ñuy rey ma xool ba xam paaka mooy rey wala boog borom bi subhanahu wa taala mooy dogal ko war a dee Haaruna judd ci at mi nga xam ni kenn du rey kon am na sens mooy magam Moussa bàyyi ba at mi nga xam ni moom lañ war a rey mu daal di judd am na ci borom xam-xam ñu wax ne bi mu juddoo yaayam ëmb na ko ba am doom te kenn xamul ni daa ëmb kenn xamul mënoo koo xool gis benn mandarga bu lay wan ni daa ëmb yaay ji bi mu ëmbee mi ngi tiit lool amul jaax ak jaaxle ndax firaaw na mu saay saay bi saa bu yëgee ni am naa doom rek da koy rey benn bis ci biti rek yaayu Moussa xëy rek mat dikkal ko mu daal di imbi ba mu dee doom ju góor rek mu taf bopp bi gis nga jigéen ñi jaaxle ni muy def rek taf bopp bi yuuxu lu tax parce que booba yàlla defalagu ko lim ko defal nag booba gisagut kéemaan ku bàyyi ko suñu borom ah loolu mu amul jaaxle lool foofu tamit borom xam-xam yi am na ci ñoo xamante ni ci téere safaase da ngay dégg ñu naan ah ji waa kër firaaw na yëgoon nañ ko bañ ñëwee fekk ko di ko réewle waaye yàlla def ci ñoom ak jafeel ba tax reyuñu ko loolu wérut loolu wérut amut bu amoon sax dëgg la kéemtaan la waaye nag amut li am kay mooy bi loolu amee sunu borom dafa déey ndaw si ilham ko ni ko ah anirdiihi nampalal xale bi toogal nga nampal ko te kuy ñëw bul nëbbatu maa koy gaar maa koy garde maanaam daal mi ngi mel ni sunu borom dani ko bu la neexee yëgalal ñëpp ne am naa doom ju góor te du tax xale bi faatu su fekkee loolu dalul sam xel ah sànni ko ci géej gi inna radduhu ilayka dina dellu suwaat ci yow foofu fiq bu am solo mi ngi fi mooy gis nga nit léeg-léeg rawatina comme jigéen ak ni mu faible am na yoo xam ni maanaam nit ki buñ ko buñ ko ci forcer di ko ci exiger lu mu ragal ni nii nangam da koo ragal da koo ragal mu wir ni da koo ragal bu ko ca kenn forcer gis nga loolu la sunu borom defal ndaw si parce que dafa am faiblesse boo xam ne mi ngi ci jigéen te nekkul ci góor ndax suñu ko woon jël ko nga téye ko. ndaw si gëm-gëm lu suñu borom tax mu def ko ñàkk ñeme gay ragal gi dana tax mu patine patine ba feeñal ko ndax suñu borom nee na in kaadat la tubdi bihi lawla an rabatna ala qalbiha tuuti kon ndaw si ni sama doom sama doom ñàkk naa ko bu ko defee su booba day siiw yàlla mu ne man maa ko téyal ab xolam ba mu ba mu gëm bu ko defee siiwalu ko léegi ndaw si borom xam-xam yi dañuy waxee ni mu doon def mooy danaan jël xale bi di ko nàmpal waaye moom comme mi ngi dëkkoon ci pegg dex gi moom yaayu Moussa bi mu dëkkee ci pegg dex gi mu defar lu benn taabuut benn genre kees kees goo xam ne liir mën na ciy tëdd mu wutal ko jàppukaay ak ak weñ su nampalee xale bi ba dégg kuy nuyoo ci buntu kër ga rek këram ak géej gi daanaka ñoo taxaloo dex gi day jël xale bi tàbbal ko ci kees gi daal di koy sànni ci géej gi waaye sànni gi nekkul sànni mu dem de dafa yeew ak buum ci kees gi yeew ak buum ci benn garab ngir bu ko sànnee lu mu sori sori après da koy xëccaat mu ñëw pour mu nàmpal ko affaire bi am loolu ay fan ay fan am na ñu wax dem na ay weer sax benn bis yaay ji yeew buum gi ndekete buum gi dafa dëgëru nekk suñu borom loolu la nam mu yeew ko dégg koy nuyoo rek mu yeew ko sànni ci géej gi ndekk buum gi dëgërul rek affaire bi rëcc ni kër Firaaw na maa ngi noonu nga xam ni maam liñ naan liñ naan koo xamante ni da lay rëbb àll neen naa la bu ma la gisee dama lay rey yow nga ñëw fanaan ci buntu këram loolu rek lay tekki kees gi daal mel ni ponkal moo yebal kër firaaw na rek muy tararari rek di tararari jëm kër firaaw na te boo fekk nag xabaar bi passé nag fàtte nañ ni sax te kat ndaw si kenn yëgul ne am na doom kees ci di daw di daw di daw di ñëw ba jub kër firaaw na ay gone yu jigéen yu doon sangu wala jabari firaaw na wala ay mbindaanam daal di séen kees gi bi ñu séenee kees gi daal ni lii day lëf la dara la nañ ko jël waaye bi ñu ko jëlee ñi ma wuñ koo ubbi ndax yaakaar nañu gànjar gu seer mën na caa nekk ñu ne nañ dem yóbbu ko jox ko bu firaaw na suñu borom mu mën affaire bi fekk ba affaire bay am fekk firaaw na daa génn soxna firaaw na moo fa nekk muy Asiya Asiya ci gën a ci ñi gën a ragal yàlla la bokk ndax ñi gën ci jigéeni addina bi la bokk comme ni ko yonent waxee sallallahu alayhi wa sallam Asiya yonent bi limaale na ko ci jigéen yi gën ci jigéeni addina bi xoolal yàlla seet ki gën a bon ci addina bi boole ko ci jigéen ji gën a gën ca jamonoom ñu nekk jëkkër ak jabar léeg-léeg mu fekk ku bon jur ku baax léeg-léeg mu fekk ku baax jur ku bon parce que yuxrijul xayya min almayit wa yuxrijul mayita min alxayyi te it yuxril arda baada mawtiha ndax mooy borom kàttan gi ah ndaw si daal di koy ubbi yàlla daal di def sunu borom daal di jël ab taar boo xam ni mallahu bihi alim bu ñëwee taar rek nga ni Yuusuf ak Moussa tamit nag ak Moussa kenn ku nekk daa am jagoo goo xamante ni yow da nga caa gën a fësle rek Moussa yàlla mu ne ko wa alqaytu alayka mahabbatan minni gis ngeen ko ci sunu Taaha wa alqaytu alayka mahabbatan minni maanaam du question taar kese nag waaye yàlla dafa def ci xar kanam gi loo xam ne gis bëgg la tudd xam nga boobu amagul tur ba léegi de Moussa amagul tur ba léegi am na ñuy wax ni sax maanaam diggante garab yeeg ndox mi lañ ko kiyee garab gi di ndox mi di mu garab gi di saa am na ñuy wax loolu yàllaa xam waaye daal li gën a wér mooy ñoom ci seen làkk mu saa saa bi bi siin siin su tooy ah mu saa mooy loo xam ne dañ koo jëlee ci diggante ndox meeg garab yi loolu la so- soxna Firawna moo doon wax loolu fa la tur wa jaar di jaaree am na ci ahlu siyar ñu wax loolu moo tax ñu tuddee ko Moussa alayhi salaam ndaw si daal di koy ubbi bi mu ko xoolee mu mel ni sa waay leer guy leer xatee ka tàkk ci xar kanam Moussa gi alayhi salaam liir boo xam ne boo ko jurut sax boo ko gisee bëgg ko te la ndaw si daal di koy jël daal di koy téye ni kii daal wax dëgg yàlla firaaw naa ngi rey ci at mi waaye bii moom kenn du ko rey kii faw mu mucc ah nu ñuy def firaaw na bu yegsee moom moom xam nga moom bandi la moom firaaw na moom màggatum bandi la firaaw na yegsi rek ndaw si ni ko xuratu aynin li wala ko mu ni ko déedéet xuratu aynin la ka yow kese lu sedd bët muy doom man ak yow bu ne ko déedéet yow kese waaye man koy bokkuma ci gis nga tafaul aka aka am solo muy gàtt nga firaaw naa gàtt nga la ko alak waaye ndaw si moo gàtt nga la ko jariñ gàtt nga mooy tafaul seet loo xam ne yow même bu demee wut noonu sax nga waxee ko waxin lu baax ngir lu baax këpp ci sa kaw loolu yent yàlla ne sunna la bokk léeg nga jékki-jékki mu yàgg rek comme exemple nga ne benn waaye ah lii xanaa mooy sa caabi oto bi ci buntu kaf loolu bokk na ci sunna ci buntu kaf fekk li nga ci jublu mooy tafaawul yéene ko oto ci misaal lii da xanaa mooy sa sa sa nangam ji fekk xam nga ni sax moom yow moom amul loolu waaye da ngay tafaawul di gàtt nga moo tax yonent yàlla bañ lekkee ca Fathu Makka ku ñëw négocier du sotti ba Suhayl ñëwee mu ni kii kan la ñu ni ko Suhayl mu ni sahulal amru insha allah kon tey la mbir mi yomb suhayl mooy tasgiiru sahl sahl mooy lu yomb gis nga sahl mooy lu yomb noonu ndaw si daal ni ko qurratu aynin lii walak laa taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattaxidahu waladan mu ni ko déedéet man jàppewu ma ko doom te mënuñoo jariñ yow kese jigéen juy sëy june jigéen juy sëy june war naa fexe am place ci xol borom kër place bu bokk na ca la muy jariñ mooy gis nga waa ji bu naroon lakk àddina bi soo nee ko bàyyi sax mu bàyyi parce que place bi nga am ci moom day xaw niroog kilifteef léeg la nga dégg ñu ne diw daa ragal jabar ji fekk du ragal de déer du ragal parce que nit daf lay jiiñ ci teraanga teraanga yoo xam day yegg fu jéggi dayoo nga rus ko te képp koo bëgg sa digganteeg moom neex jëmbatal garabu ker sa digganteeg moom koo bëgg sa digganteeg moom neex rek fexeel garabu kersa ngay jëmbat di ko roose loo mën nag mu màgg insha allahu ilal abad sa diggante moom day neex ci kàttanu sunu borom gis nga ndaw si ku amoon place la ci xolu firawna malgré amuñu woon doom waaye firawna da koo fonkoon lool ndax ndaw si jàmbaar la woon lu mu doon man mi ngi koy def ci di ko sëyal doonte saay saay bi la nag mooy firawna firaaw na di fëtër xëtër xëtëri dama koy rey kii kenn mënta téema rey ko amaan na boo demee mooma li ko womat ba mu ñëw fii kenn xamut lu mu doon liñ naan nit ki léeg-léeg dafa am mbir yoo xamante ni sa xel da koy njort di ko nekk ndaw si di ko nepp nebbal di ko megg meggal di ko naxaka raay ba firaaw na nangu nangu ñàkk pexe nangu ñàkk pexe di waaye xelam dalu nangu ñàkk pexe gis nga Moussa ba keroog muy folli ba keroog muy muy muy alak firaaw na xelam dalu xelu firaaw na dalu ndax benn ñaar ñett rek firaaw na ni kii sib sone naa ko lool sib sone naa ko lool léeg-léeg am na yoo xamante ni ay yëg-yëg la ay masaare nit day yëg Moussa moom nekk ci biir pale bi rek léegi ah ñu commencé ci biir léegi nag problème bi mooy xale bi ku koy nàmpal ak ku yaayam kan moo koy nàmpal ah Moussa firaaw na ni waa léegi wutal wutal leen ko ku ko nàmpal dinaa ko fay salaire ñu wër dëkk bi ku ñu andi rek bu bu jëlee xale bi teg ko ci ba mu laal ween wi rek xale bi day mel dañ kaa ñaas yuuxu yuuxu yu foor ubale xale bi yépp ñu ne koy teggil ya ñu jëli keneen ñëw xale bi mel ni moom kookaa gat moom lañ gën a ñaas xale bi nanguwul a laal benn ween mooy wa xaramna alayhi almarada fekk xale bi mu rëccee am na benn magu Moussa sëram bu ñuy tuddee Kulsum Kulsum binti Imran yaayi yaayi Kulsum ni ko demal nga toppal ma ko nga siibir ma ko mu di ko xool di ko xool di ko xool ba gis ni dugg na biir kër firaaw na mu ni ko wéy ay xay am na dugg na kër fañ koy alagee nag waaye ndaw si li muy am am sikk sàkka yëpp teewul suñu borom xamal na ko ni ko inna radduhu ilayka sa xol dana sedd wa jaa'iluhu min al mursalin la mooy jiite ñëpp ndax ab yonent lay doon muy ñaari waad yoo xamante ne yàlla li muy digge waadan alayna xaq